xelam di ko jëmee ci Cheikh Mouhamadou Mountakha Cheikhul Khadim di ñaan suñu borom bàyyi ko fi te may ko wér ba mu àggale mboolem naa yi nga xam ne fas yéene na ko liggéey Cheikhul Khadim radiyallahu anhu tàmbale ci naan yi nga xam ne moo tax ñu daje fi kàddu yi xam tàmbalee ak liggéeyam defal ñu taw feexi wax ne nan ko ci taxawal jiital ci mbooloo mi ñuy wax rawdu rayaaxiin waaye nag ñu ànd ko ak mboolem njabootu Sëriñ Tuuba tàmbalee ci kër sunu maam moom Cheikh Mor moom sunu maam Jaara kër Cheikh Ibrahima Fati kër kër Cheikh si Cheikh Hafsa ak mboolem mbokki sëriñ ak mboolem ak mboolem kër yi nga xam ne taal yi nga xam ne sëriñ bee leen taal ak mboolem kër sëriñ Tuubaa yi ci boppam ak mboolem mbooloo yi ci topp mooy njàngum majlis bi ci topp mooy njàngum école yi nga xam ne moo fi nekk bi ci teel topp mooy njàngum université ñu tàmbalee la ci alxuraanul karim ndax moom mooy mbirum Sëriñ Tuubaa mooy li nga xam ne moom la mu ñëw ngir yéwénal sunu àddina ngir ñu a alquran nañu ci ba tey ñeenti at dana ba Cheikh Amadou Bamba Gaynde Fatma mu def ci liggéey moo xam ne àddina bu fàtte ba fi mu nekk nii ñeneen ñi ñëpp a ngi ko jëriñoo fenn foo wax ci àddina bi gis ñu génne foofa ci ay domaine yu wuute yoo xam ne fii lañ tàmbalee woon seen jaar moom ñaan tam ñu dooleel ñu gis ne loolu lu am njëriñ la boobu itam ñu boole ko ci mu am beneen njàng nag muy short muy bu kawe bi ku wax université bii nga xam ne moo ko sosoon tuddee ko université ku wax université islam bi ngay wax ndax Serigne Touba moom lépp moom islam ndax lii war nekk ci mbir mi ñu jël ko jëlee la fa nekk ci ay